ci pexe moo xam ci doxalin moo xam ci lu pour que Khalifa Sall mën a mais tamit il faut qu'on se respecte tey Sénégal nu sénégalais nous déggee noonu la mbir bi tëddee man inventé wu ma dara dafa am ay ñu candidat élection président Nous jaral na leen lépp lu am ci nguur gi xam ministre moo xam ay poste institution ñu delloo lépp Macky Sall nekk candidat ñun musuñu commenté loolu parce que seen droit la ñu nangul leen ko mu am ñeneen man duma ma inventé man dama leen di wax lu fi am mu am ñeneen ñu ne ñoom ku ñu nekk candidat ñoom jaral na leen ay centaine de bakken di rot Sénégal te ne seen yaay juraat man xasuma kenn mais loolu la ñu wax ñoom loolu moom daf leen ko jaral ñu nangul leen ko waaw ñun ñu ne ñun njabootu Khalifa Sall ñun ci su ci suñu xalaat bu gàtt ñun pour ñu nekk candidat ñun d'accord nañ dem dialogue politique pour waxtaanee suñu candidature ak waxtaanee tamit mu Sénégal nogee dem ci élection yi pour mën ci dugg ci jàmm ak salaam gën ci jàmm ak salaan ay ñit nag nekk loolu ala kulli àll duñ ci ànd bëgg ñu dëkkaloo fu ñu dëkkul ak di ñu saaga mais ñooñu dañuy fooy seen xel ma biiralaat wax ci fii man dama bëgg wax ci leer kenn feesul suma bët maa ngi tamit jógul ci kàddu yi ginnaaru kenn nenu ma te ñu ma àndal lu ma leen yéene yàlla naa leen ci jiitu dama leen di laaj man tey Sénégal lan moo may tegee nekk tey candidat élection président lan lan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 je suis Sénégal je man parce que je suis ko